fa teewaloon na télévision Futur Média. waaw déclaration lu mujj def parce que ministre du milieu dafa préciser ne amut laaj ak tontu kon dafa am rek benn texte bu mu liir daal di dem ci français na gàtt na lool ci wolof xëy na la gën a xóotal liñ ci mën a jàpp mooy euh, gouvernement daal dafa mel ni parewun bi rek comme li ñu di wax euh, ay waxtaan ak yu mel parce que Antoine Diome li mu wax leen na qualifié na sax fee jàpp ni daal dafa am ab citoyen Ousmane Sonko la mais tuddul turam mais dafa am jafe-jafe ak yoon ne dafa mel daal lànk na ne moom du wuyu yoon wala day défier institution yi rawatina république beeg yu ni mel te loolu nit wala xel mënu ko nangu lim ci teg tamit mooy ñoom fan yi nemmeeku nañ ni manifestation yi ñeenti nit ñàkk nañ ci seen bakkan moom la wax bu sukkandiku nit ba tax nag ginnaaw bi mu jaalee seen i mbokk nag moom nee na daal acte yi qualifié na ko aussi daal ne rek terrorisme parce que mel neen ay acte la nee na tamit acte vandalisme yi ak ñaawteef yi nga xamante gouvernement dina jëli matukaayam bañ ñi ko def moom fu mën a nekk dañu leen rëbb jàpp leen yóbbu leen fi nga xamante mooy fa mbaxane doon bon daal leen di juger ndax nee li xew daal xel mënu ko nangu ci réewum Sénégal bu fekkente sax comme ni nga ko waxee yàqu-yàqu yu bari gouvernement bi nag moom nee dina ci waggar rek su ko defee lii moom euh, bañ fee amati moom ministre de l'intérieur loolu la wax daal ci déclaration bi nga xamante wax na ko bi mu weesoo naan vaccination yi maanaam ñàkk yi comme loolu am na na kon couvre-feu bi daal dinañ ko gën a allégé waxagul nag détails yi kañ la ak yu nu mel nee na dina signé ay décret ak yu nu mel jëm ci wàllu mental li ñu ci mën a jàpp mooy loolu la ministre bi nag euh, ñëw na wax li nga xamante ni kon moom lañ doon xaar Euh, nee na nag ba léegi rek gouvernement bi moom euh, dina wéy euh, liggéey bi ak tamit force de l'ordre yi bëggoon nañ ko laaj di question nag mais malheureusement mayuñu ko loolu daal asu leen mën a jàpp ci li nga xamante ni moom mooy situation daal daal ñu ngi wër gaa yi di leen koo xamante daal sa loxo laale na ci li nga xamante ni moom moo fi am ci fan yi daañu la jël ginnaaw nag bi masawoo ñi nga xamante ni amal nañ ci ay yàqu-yàqu yëpp jërëjëf euh, Chérif mi ñu teewaloon ci déclaration ki nga xam ni moom mooy jëruñ ci yor euh, kaaraange biir euh, réew mi tënk na waxtaan woowu lay fàtt ki ne ma bàyyi la nga dalal sëñ bi Ba ay ayca bismillah di la nuyu bu baax a baax doyen Barka ni ko Assoumène waxee sànq xam naa ni ñàkkul ni discours ministre bi ñu nga xamante ne moom la ñu dénk biir réew mi.